Yogo, wow, Yogo, nga la fa nga fi nga en fait passage bu gàtt là. tout simplement parce que man dama doon jouer dans le quartier nekk boy, du jouer ci quoi. Il y avait euh, un gars qui s'appelle Ala. Ala ouais. Ala euh, grand Ala moo romb di ma xool jouer parce que moi j'avais un grand frère Pisco bu me jouer à Yogo jouer à la Jeanne d'Arc jouer même équipe nationale mais en en espoir. Le le tournoi de Toulon puis quoi avec les Alan Shearer et tout ça c'était la même génération donc ba muy romb peut xool mu ne il peut être bon quoi mu wax ko Touré ndeysaan dem si yàlla Touré voilà Touré euh, voilà donc voilà Il a koy ñaanal yàlla xare ko Adiana Touré donc fu euh, ne ko am na il peut il est il est aussi bon que Pisco quoi donc non la même Touré romb 17 ans 17 ans 17 ans ba bëgg me convaincre pour madame Yogo mais Yogo c'était juste quelques entraînements parce que je tout fa à en compétition parce que tout de suite avant en préparation qui l'a Dame saint Etienne, donc euh, préparation hivernale Dame saint Etienne. donc c'était c'était un passage très très bref donc saint etienne nous sommes soxla joueur donc euh, trouvé rapidement convaincre Madame madame euh, jouer à saint etienne puis c'était c'était un moment très très particulier parce que visa 5 jours là à mon quoi. Visa 5 jours là, je suis jogé ici, dem Saint-Etienne. Ah. Visa 5 jours. Alors tu devais juste, juste pour défaut Essai. Test. Visa 5 ah. jours. Comment c'est Comment tu as période Ah, mais <laughs> comme on dit, euh, <laughs> la mort tu le fais ou tu le fais pas. waaw 5 jours là boo ñëwee am nga 5 jours pour convaincre mais ñun amoon nañ confiance ñun parce que euh, qualité yi duñ wax mais gëm-gëm bi déjà xamone nañ ne bu ñu poussé rek war nañ mëna war nañ mëna a une carrière quoi parce que fofu noonu aujourd'hui tu es euh, face à tes responsabilités fofu amul ay ki mo lay arranger wala ki mo la tubaab yoo xamula dégg na ñu lay wax sa tour mu ñëw teg la euh, dans des conditions là la voilà cinq jours nga am pour convaincre mais cinq jours yoy non dama ñëw rek dëggal sama bop parce que je xamone né moy déterminer sama sama sama carrière soit damay dellu Dakar je me dis je suis pas fait pour le football mu defi lenen soit damay dëggal sama bop gars yi gis gis gis ma euh, me séduire leen ñu lancer sama carrière voilà et moi j'étais plus dans cette optique là pour taxof tok fofu non, pour ñu lancer sama carrière non xalaatu mon ben yon pour dellu la preuve euh, damay wàcc teg sama bagage nelaw tuuti gars yi ñëw yee la na da ngay entraîner <laughs> le même jour donc donc lolu mom déjà. do fi nek naan dama sonu ma ngi dogo voyage da ngay paré par force. donc da ngay paré par force mais mentalement on était préparé à tout ça. donc voilà nga def sama 5 jours yu baax. gars yi ne non ki dem Sénégal sax pour defal visa buñ ko def tay tok les saint etienne au niveau de la préfecture je pense que c'était Jospin le, le, ministre je pense exceptionnellement ils ont fait un visa long à partir de, la France ce qui est ce qui est rare parce que souvent da a des fii il a fallu sa contrat de travail mais pour te dire que nous avons yoo xamante farlo euh, comme genre genre situation il noonu da ngay xam ne dem Sénégal donc da nga koy jël <laughs> parce que <laughs> équation la boo xamante ne doo ko xalaat. Mhm. donc yàlla dimbali ju tamit euh, rapidement ñu signer suñu contrat et puis démarrer la notre carrière quoi. au moment au moment exceptionnel dans ta au début de ta carrière. ah oui c'est un moment exceptionnel parce que <laughs> moment boobu noonu mooy mooy déterminé lépp c'est-à-dire mooy soit da ngay jël sa envol soit da ngay. dellu si da ngay dellu si nga découragé parce que temps xale nga dem France ñëwaat. Mhm. ñu si bëri dem nañ ñëwaat mais dematuñu da leen décourager tellement que dañuy jël football teg ko ne la dem defi leneen mais moment yooyu noonu moi boo xamante ne. la moo tax gisoo woon gisoo parce que. non li nga bàyyoon fii c'était condition difficile nga nga bàyyoon fii. oui ne non. c'était pas question moo dellu Sénégal. c'était une chance c'est-à-dire euh, la chance elle vient pas toujours taper à ta porte c'est une chance bien vrai que voilà provoquer la chance mais chance la boo xamante ne aujourd'hui euh, le monde professionnel s'ouvre à toi donc aujourd'hui boo il faut que góorgóorlu il faut que nga def plus que les autres. Euh, dugg ci monde professionnel bobu parce que bo démé tubaab bi bu défé ben fo nga def ñaar parce que tubaab bu défé ben nga def ben tubaab bi mom nañu jël. Mhm. tu comprends donc du coup il fallait montrer plus sur le plan technique il fallait montrer plus sur le plan physique sur le plan tactique donc il euh, y climat bi également c'est climat bi parce que man je suis parti en mois de janvier. donc euh, musuma gis neige ñëw taxaw gis ay neige mais il faut foog nga def abstraction nga xam li la fi indi moo indi donc euh, day metti yombul sedna parce que yow Sénégal climat yi dafay dafa am tang mais focus rek xamné euh da nga wara gëna gën a da nga wara gëna woné wane plus que les autres pour euh, pour s'ouvrir la porte euh, du milieu professionnel et donc ça a été le cas ñu sant yalla mais y a pas de cadeau mm-hmm. fofu amul ku lay defal cadeau pour nga wax la non parce que yow non dañ koy yërem parce que non da ngay ñëw nga wane lu

beneen affaire là parce que on n'a pas de veste parce que au Sénégal lu amoo veste amoon dara. Mhm. nous pull ngay sol rek. heureusement qui mënoon jël si eh, dirigeant bi mënoon jël si mu indil benn parka Saint-Étienne parce que ils avaient prévu ça xam nga tubaab ils sont plus dans l'anticipation donc waa ji moo ñëwee waa ji moo jox parka bi bon sol mu sedd kuy je me rappelle donc. Euh, ñu def war a def seen jóge Lyon dem Saint-Étienne parce que Lyon Lyon aéroport bi moo moo ko gënoon jege. Mhm. daw loolu ñëw egg ma je me rappelle ay 11h midi. dam ci réfectoire bi gars yi présenté la nga añ xam nga nalaw sieste waxuñu ma sax damay entraîné man dama jékki-jékki rek quinze h 30 ñu yee ma ne ma mais entrainement entraînement jour bi nga yegg jour bi nga yegg jour bi nga yegg da nga ne sieste tuuti rek yow ñu la entraînement entraînement mané ne ah acca boobu entraînement ñu euh, jox la sa dotation jox la sa maillot say dàll say say say say crampon et tout ça parce que il indaale le monde sax crampon ngay jox la crampon nga sol et puis voilà donc ñeu jël ci le auto bi jël ci le nga dem voilà gars yi présenté la ñi nga war entraîner ñu toog séance bi lii ak lii ak lii ak lii mais il faisait froid. tu as pu quand même gérer. Il faisait très très froid, je me rappelle. J'ai même, je me suis entraîné avec euh, la parka. Tu hmm? ah. te loolu waroo entraîné. le 10 ça? ah 10 gars mais parka non non dama même avec ça. <laughs> <laughs> mais mais mais mais en fait il faut que xale ramener Yomboul. ne yombul que bëgg dem affaire du il faut il faut vraiment Euh, yo, nga xamné bo démé demee kenn du defal cadeau kenn dula la defal kenn du jox fleur da ngay dem nga nga nga nga nga xamné bu tangé day tang bu sédé day sedd mais nga xam li la fa objectif li la fa yob nga def sa kéemtalaay katan pour atteindre ko lool rek moy moy moy message bi mais sinon je pense que bo fi nekkee ñëw dafa sedd non non ma ngi dog a ñëw na j'ai besoin de me reposer ak yooyu yooyu yooyu rek peut-être tuba bi mën na la ci natt. en te disant que est-ce que est-ce qu'il est dans le bain est-ce que est qu'il est focus est-ce qu'il est pas paresseux parce que toi, parce que toi contrat sur le plan physique sur le plan intellectuel sur le plan mental parce que que le football di physique intellectuel mental c'est les caractères c'est les les critères de performance yi nga xamante joueur de haut niveau de koy soxla physique mental

il faut que psychologiquement nga mën taxaw pour préparer waat pour gëna a euh, ni ko redoubler waat d'effort pour pour gagner ko yoyep caractère yo caractéristiques yoo xamante ne da koy soxla donc tubaab bi dina la nat ci yu bari donc nouvelle génération bi il faut que ñu paré xam ne kenn du leen jox fleur Sadio Mané muy def ba réussir ni ni nii Bambali ba am réussite bu mu def ni il n'a pas eu de fleur ça c'est vrai il n'a pas eu de fleur kenn yombalul ko ko mais dafa fight ñafé am ay obstacles yu metti yoo xamante ne dañ koo koy tegal muy mu koy contourner pour pour egg fi euh, euh, au niveau où il